li ñu fi indi mooy xam nañ ni comme dañoo association bu bees lañu sos indi nañu sunu papier yi ñu war a affilier yëpp mais daf ci am benn loo xam ni il fale ñu waxtaane ko pour mën a finaliser loolu loolu moom fi indi waaw waaw loolu c'est interne ak CNG euh, bi loolu moom c'est du affaire bu bëre mais ci affaire administration la waaw ci kàttanu yàlla nañ ko waaw gone gu juddoo Fass màggee parcelle ñi la wër dëkk judo ñaari tali ay pression ak yoy mom seeboo ñu yóbbu ko fële waaw soo presque li ko desee ci lamb euh li ci des waxuma ne tuuti na mais wutul boobu bëri mu ngi ci presque est-ce que amul 40 combats wala un peu moins de 40 combats am ay plus de 27 victoires parce que victoire yi mu am Dakar lañu compter mais lamb ju officiel mu bëri ay Serge bu Thiès match nul fa ak Cheikh Niang doom Boy Niang am fa 4 victoires Ken Bolé ko ci comptable victoire yi bu ko ci Bolé am na plus de 27 victoires donc kooku du ay pression benn làmb non non non. Ah, danañ xam nga ku bëreeg si kuy bëreeg si te mom. mobilisation c'est boo nga xam ni am nga problème ndax euh, nit ki wax sa baaxu moroom du la wàññi sa baax dara Yalla, ci mbër yi mu may mbooloo si te ci la bok. mais suñu côté on va faire le maximum ba nga xam

lol mais bu doon moom la du non c'est pas vraiment mieux vaut tard que jamais li jot rek yomb ah je sais pas si xam relation personnelle ak waa face, bon moom moo koy dox man xawma ma relation yi ma amoon ak ñëpp moom laay garder ak ñepp c'est-à-dire euh, respect mo am sama ñeme par exemple si je prends le cas de du président Abbas Abbas Ndoye mais ñeme wax ne Abbas benen moo budul Abbas nit ku bax loola ma woon ñeme wax benen mo ci mbay lu nit ku bax loola ma mais le reste nak non am na commentaire yoo ci dugg quoi je préfère ne pas en parler parce que maa su man maa man maa sut loolu sut xam nga bu so waxé né buggul woon génn après nga né génn bi naxariw kon du am sens c'est parce que né nga buggoo woon génn dakh na nga neexu la moy logique fofu lañuy waxé mais du parce que dañ ci am non non non non non man. Abbas vraiment ay Thierno Dramé ñoom ñëpp nous avons de très très bonnes relations yi moom laa amal ak et je garderai ces relations là tu comprends man du ma wax lu ma gëmul du def lu ma